aywa euh, Marcel xam nañu kon euh, réewu Afrique yi nga xam ne ñu ngi dem ci barrage yi mu soxal éliminatoire mondial 2022 c'est ça ni nga ko waxee noonu la soxna Fati mm-hmm. sànq sax Cheikh Tidiane jot na ci euh, indi tuuti ay leeral mm-hmm. donc ñeenti équipe ñoo mujjee qualifié mm-hmm. ci ci barrage yooyu kii di Algérie nekk champion d'Afrique fi mu nekk nii Cameroun ginnaaw ba mu defee ba mu dóoree kooku d'Ivoire Nigéria daanaka metti woon na nag ñoom ak waa Cap Vert puis Tunisie euh, daal di dóor Zambie euh, ñetti bal euh, ci benn. Mm-hmm. alors ñu dellu ci ginnaaw rek xool. Mm-hmm. juróom benn équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo njëkk qualifié. Mm-hmm. ci ci pour barrage yooyu fii ci Afrique. ku mel ni Mali Mali moom mooy particularité bi parce que moom musul bokk phase finale coupe du monde. donc am na chance ba léegi. pour mën a bokk ci ci dix en tout cas ci cinq yi nga xamante ne ñoom ñooy nar a daje après. Égypte tamit bu Mohamed Salah Ghana Sénégal Maroc Maroc particularité moom mooy que mooy la seule nation bi nga xamante ne parcours sans faute la def. Mm-hmm. en six matchs six victoires la ñu jot a am. Mm-hmm. Euh, donc RD Congo euh, ñoom ñoo di euh, ñoom ñoo daal di teg les six premiers pays qualifiés mm-hmm. pour les barrages du mondial. alors comment nan se passer les barrages. Afrique déjà li ñu mën a jàpp mooy euh, date bi hmm. euh, date du tirage hein hmm. tirage maanaam balaa ñuy euh, par exemple Sénégal kan a hmm. dajel le 18 décembre 2022 2021 hein, plus précisément 2021 lay nar a am Doha au Qatar désolé de la faute de frappe et puis bi tête de série yi ñoom comme ay Sénégal ak ñeneen ñoom ñooy njëkk ñoom ñooy njëkk dem fekki seen potentiel adversaire et rencontre yooyu di nar a mars mm-hmm. euh, confrontation comme ni ma ko waxee euh, match aller retour lay doon. donc ci mm-hmm. ëppale euh, nombre de buts moom mooy moom mooy nar a jàll automatiquement et puis comme ni ma ko waxee ci tënk dix équipes ñoom ñoo qualifié. Mm-hmm. pour barrage yooyu puis donc à l'issue de ces rencontres là cinq lañ ciy nar a jàpp nga xamante a représenté ci Afrique. ca mondial 2022 buy a am ci Qatar muy nar a la dernière fois bi nga xamante ne am cinq représentants en Afrique puisque je rappelle que.

de Romelu Lukaku la France bi nga xamante ne moom actuellement moom mooy euh, le pays euh, en tout cas ki ki mujjee gagné coupe du monde bi ba 2018 la woon ci Russie. Mm-hmm. Croatie moom mi demoon finale ak France. Mm-hmm. Euh, Espagne Serbie ginnaaw bu mu defee surprise gagné Portugal l'Angleterre la Suisse et puis comme ni ko Cheikh Tidiane Dia waxee sànq les mm-hmm. Pays-Bas ñoom ñoo ñëw mottali. boobu les listes et puis il y a également des barragistes en Europe fukk ak ñaar la ñu Italie muy surprise nag parce que ñoom ñoo gagné euro bi passé kenn xaar waaru leen woon ci ci boobule barrage mm. euh, Portugal de Cristiano Ronaldo euh, de Gareth Bale mm. euh, l'Autriche l'Écosse la Russie la Suède la Pologne Macédoine du Nord Turquie

26 novembre 2021 lay nar a am foofu ci Zurich en Suisse. mondial bu bëri polémique de n'est-ce pas. waaw mais balaa loolu ñu ci yeneen continent. Eh avant avant avant après l'Europe ñu xool euh, Amérique du Sud. Mm. ak Asie. Mm. Euh, fu mu nekk nii euh, Brésil bu Neymar ak Argentine bu Messi ñoom ñoo qualifié gum ñuy xaar daa daa mel ni Uruguay bu bu Luis Suarez. Mm. et puis les les qualifiés en zone AFC maanaam foofu ca continent asiatique. Qatar la fu mu nekk nii. Mhm. naturellement parce que moom mooy euh, moom mooy le pays hôte voilà de cette euh, de cette prochaine coupe du monde. Mhm. Euh, alors ñu ñëw tamit ci ñoo xamante ñoom jot ne am déjà seen ñoo mhm. xamante ne qualifié ba pare globalement. pour prochaine coupe du monde boobu fukk ak ñetti réew la ñoom ñoo qualifié fu mu nekk nii ñuy fàttali ne. que 32 pays ñoom ñooy nar a qualifié pour la phase finale de la coupe du monde. et puis donc bu ñu defee le calcul si mes calculs sont bons. 19 mhm. places ñoom ñoo des donc euh, à prendre mhm. euh, euh, bu xaw a bëri polémique la. Euh, bon mondial bu bëri polémique la effectivement particularité am déjà c'est que on note déjà que c'est la 22e édition. 22e mhm. édition et puis du

à l'ombre euh, donc daanaka sax autorité Qatar yi dañoo dem implanter ay climatiseurs. Hmm. ci biir stade yu yaa ngi yu ñuy a découvrir ci euh, kanam et donc l'autre particularité c'est que jamono bi muy nar a am hmm. naturellement comme décembre ak euh, comme novembre ak décembre lay nar a am et eh bien les championnats yi nga xamante ne un peu partout dans le monde hmm. dañuy nar a a nekk à l'arrêt daal mu la première fois ñu daal ñu gis cas bu mel noonu depuis la crise qu'il y a eu liée au coronavirus très bien voilà euh, donc ñu jeexale euh, peut ci euh, li ñu doon wax sànq. Mm-hmm. mooy la polémique. Mm-hmm. Euh, à rebond bëri na polémique coow li bëri na trop depuis sax euh, ba ñuy attribuer keroog ba ñuy attribuer kii di réewu Qatar 2 décembre la woon lañ ko attribué woon organisation coupe du monde bi le lendemain déjà rek ñu ñu génne ay accusations corruption. Mm-hmm. bi nga xamante ne moo média yi di Sunday Times ak BBC ñoom ñoo ko daal di fësal et puis ay vives critiques yi nga xamante ni euh, président américain ba woon sax mm. euh, di Barack Obama moom da ko daal di euh, da ko daal di amoon temps boobu noonu mm. et puis 2013 le journal Le Monde moom dafi daal di euh, expliquer daal euh, bés bu nekk ouvrier yi étranger yoo xamante ni dañuy liggéey foofu ca Qatar naka la ñu sonnee ci chantier yi foofu mm. euh, fukki waxtu ak benn bés bu ne la ñuy liggéey mm. six jours par semaine parfois sous une chaleur ni mu ko doon waxee sànq yoo xamante ni jusqu'à 50 degrés et d'ailleurs en 2013 selon un rapport de que, que le média The Guardian a pu euh, publier euh, 4000 décès Euh, jamono jooju déjà ñu ngi ko doon lim ay ay euh, ay yoo xamante ne euh, jot nañ fa ñàkk seen bakken ci ci yooyu les chantiers et puis février 2014 beneen rapport mm. bi nga xamante ne day renseigner que depuis 2010 donc depuis bu ñu ko attribué organisation mondiale boobu 400 mm. d'origine 400 ouvriers mm. ak 500 ouvriers indiens tamit daanaka dañoo gaañu ci ci yooyu les chantiers peut-être loolu yëpp à ce jour selon toujours The Guardian

waaw comme ni nga ko waxee rek coupe du monde bu particulier la euh, particulière son coupe du monde mhm. mais euh, surtout dina métti ci wàllu club yi parce que am na information yu jub sax naan coupe du monde bi soo moyul équipe yi nga xam ne ñoo ñoo koy seq dañu am préparation parce mhm. que se dit que une semaine avant. Mhm. le le club yi war a libérer seen joueurs yi. Mhm. te loolu je pense que da luy métti la surtout li ñu amoon habitude de vivre nga xam ne équipe si doon qualifier coupe du monde daanaka dina am un mois. Euh, pour mën a préparer wu parce que saison bi dafa doon jeex joueurs yi dem rejoindre seen équipe nationale. Mhm. préparer jouer ay deux trois ba quatre matchs amicaux. Mhm. avant ñuy dem ci compétition bi mais bii ce sera au mois de décembre. Mhm. le bi nag dinañu jouer dinañ leen permettre ñu jouer jouer ba compétition bi semaine. pour ñu am obligation door club bi door am obligation pour euh, libérer leen. ce qui veut dire que ça va pas être euh, facile. te ni mu ko waxee tamit euh, ay stades yu climatisé la ñuy jouer tout cela je pense que euh, ay donne yoo xam ne la. Mm-hmm. daaw ñu ko woon gis ci compétition bu ni mel. Mm-hmm. mais on va voir comment est-ce que les joueurs les équipes nationales vont s'adapter face à cette situation. Très bien merci beaucoup euh, cher Tidiane Marcel on te retrouve sur le plateau. oui voilà. c'est ça pour euh, la suite info matin Marcel Maroun lañu àndaloon euh, ci un jour une actu léegi léegi ñu dem ci leneen de quoi est-il le nom.